batay ci sen scandale du jour Cheikh Cheikh ni da ngay am jom Cheikh ni nenañ le la ñu ku len parrainé nga ne yow da ngay parrainé ñu dem déglu Cheikh mom kan la parrainé ba bay <laughs> mom nak mom da bay ministre yi tub ba ci ba ci président haute parrainage. tout borom lay tollal te bis bi sama bis la man kay yegal nak son excellence président Bassirou djuma jaxar fay di ko yegal premier ministre du Sénégal di Ousmane Sonko. di ko yëgal ancien président de la république du Sénégal di son excellence président Macky Sall di ko yëgal ancien premier ministre du Sénégal de président Amadou Ba kon xewi xewi président la président Bassirou Diomaye fay mooy invité d'honneur bi PM mooy invité spécial bi Ousmane Sonko mooy invité bi kon xewi seenu xewa kon gars yi xaatu soppe am di jàmm yi xewi xewi waa Pastef la ñu leen di bu baax di leen baalu àq di leen ñaanal jàmm kon mercredi incha allah rabbi ñu ngi woo ñëpp bàyyi ñu kenn. ku la yëgloo kan moo la yëgloo xew Cheikh sa xew teeku Cheikh sa xew teeku ñii bugguñu xew bugguñu mariage bugguñu ngénte bugguñu bongo bugguñu xew bugguñu mbuum ñoom daal ñoom lépp luy ambiance ñoom bugguñu ñoom ñoom Sonko bu mu toggee bu mu tëggee ay casserole ba bàyyi moom ci la pare ci mbirum ay ambiance ay tëgg ak yooyu noonu ay Cheikh looy yëgle. ñii wax nañ ñu suñu bopp donte man ak yooyam ndax man sama xew génnuma ci El Malick Ndiaye moom laa topp ba léegi ne moom laa ko ndeyale waaye nag ah Ousmane Sonko ngay woo ci xew ak ak yow li nga wax Sonko yëpp Cheikh déedéet Sonko du ñëw du ñëw du ñëw du yóndi du ñëw du yóndi te nag kenn yëgloowu la ñii nee nañ bu leen kenn yëgal xew bu leen kenn yëgal xew lu leer laa lay wax jadi